am mbégte gannaaw bu ñu dajee fii ci suñu wet le préfet Abou Sow mu ànd ak sous préfet Moussa Sow musaa Ba sama xarit mu feggoog président conseil départemental te fi représenté muy sëñ maam Thierno ak le maire di Mbacké Kadior commandant brigade ak mboolem chef de service yi nga xam ne yëpp ñu ngi fii di suñuy xarit ñu nuyu leen sant leen ci turu Serigne Moustapha mi nga xam ne mooy jëwriñu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mu yabal ñu maag sama kilifa yi ci sama wet ñun ñëpp ñu ànd. ñëw teew ci seen wet ngir ñu waxtaan lu jëm ci bis bi nga xam ni mooy màggalu Jumatul Ula te muy màggalu Mbàkke Kajoor am naa yaakaar bu baax ni kenn umpaleetul màggalu Mbàkke Kajoor ndax mooy bis bi a Cheikh Mawlid leen Bara ibnu Xaadimu Rasuul gane àddina xam ngeen ni sëriñ bi bi ko yonente bi feeñoo fii ci Mbàkke Kajoor niko rabbi asxaabaka bil himmati wala rabbi bi darsi faqat mu dégg waxe yonante bi ngir yeesalaat sunna sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam te mu yoy yonu jaayante mu leral talibi yi lolou talibi yep jaayante ak mom bi ci ëpp serigne bi tok fi ab dir ginaaw bu Momar Anta Sali génne àddina ñibbi Mbàkke Bawol ba sañ daru salam lépp mi nga ànd ak talibi yoy ëppoon nañ ñeent fukki góor ba sañ ci Touba 1880 1888 Cheikh Moustapha feeñee Darou Salaam ak Serigne Fallou 1891 bi Cheikh Mouhoulé Bara feeñee ci jamono góor ñooñu ànd nag moom ngir bëgg ab cër ci seen borom bëgg àgg ci yàlla da leen a woo ba ñu ñëw ni leen li ngeen doon ci seen borom lépp gan gii ñëw andil na leen ko mooy bis bi Cheikh Mouhoulé Bara gane àddina kon muy bisu ndimbal di bisu tawféex di bisu faj aajo moo tax sëriñ Moustapha fonk ko lool ànd ko njaboot gi di ko woote ni ko kilifaam yi jiitu mu koy def ci ndigal ci ndigal bu sëriñ Tuubaa Cheikh Modou Mountakha ak ci kilifteefu Baye Ahmadou Makhtar bi nga xam ne kilifa kër gi moo mu yabal ñu ñun ñu suñu kilifa kii di suñu maam di sëriñ Cheikh Mbacké suñu wax sëriñ Cheikh Kajoor te muy imaamu Mbacké Kajoor bu fi teewee teewaayam moo teewal mboolem njabootu suñu Mbacké Ibrahima yépp ñu koy sant bu baax ci awe faayam ak xam gu mu xam ni Cheikh Mouhamadou Lamine Bara bi muy ñëw Mbacké Kajoor ci loxol waajuram la ko sëriñ Tuubaa tegoon moom la ko booleel ngir mu dal ci moom loolu ñu koy sàmm ba mu agsi fii mu gën a dëgër gën a rafet kon sëñ bi lay sant di la gërëm yaa ngi njaboot sëñ Mbàkke Kajoor yépp sëñ Basiiru ak ñi ngi ci àndal ñëpp monsieur le préfet ñu feggoog sëriñ Bara Abdoul Ahad sëriñ Sidi Mbàkke Abdoul Aziz sëriñ Cheikh Bara Abdoul Karim muy imam guy wind sëriñ Xaadim Mustayin sëriñ Ibra Diop ànd ak sëriñ Habib ak sëriñ Xaadim mu àndal ñëpp di njabootu sëriñ ñaan Diop ñëw teewal fi xalif bi sëriñ Lamp Diop sëriñ Modou Bara Abdoul Khadim xalifa sëriñ Abdoul Khadim sëriñ Cheikh Fall Gueye ñëw teewal fi xalifa sëriñ Adama Gueye daaira wilaya nga xam ni sëriñ Mbàkke Soxna moo ñu boole woon ñuy ànd liggéey bi ñëw nañu ànd ak ñun ci njiitu sëñ Aliou ñaan sëñ Dame Loum sëñ Abdou Lahad Ñang sëñ Mbàkke Ñas ak ñi ci ànd ñëpp fédération daayira Cheikh Mouhamadou Lamine Bara bi nekk Touba sëñ Bay Seck jiite ko ñoom it ñëw nañ ak mbooloo sëñ Sidi Ba Abdou Aziz Diop sëñ Xaadim Ñaan sëñ Xaadim Diagne sëñ Moustapha Diaw moom it ñëw na ànd ak waa Ngumba Ngeewal gépp Alhaji Mbàkke Kebe moom it ni ñu ko waxee sànq nga xam ne kenn la ci kër gi liggéey liggéey bu mag mii bu toll nii ngir Cheikh Mouhamadou leen Baara nga xam ni ba mu amee ba léegi fii la ñuy defal liggéey moom it ñëw na ànd ak waa këram yëpp Serigne Baara Mbacke mu Serigne Amadou Abdoulaye ñëw na Baye Mamadou Sall bi nga xam ni mooy chef de village Touba bu bind ànd ak njabootam yëpp ñëw Serigne mu Cheikh Sidi Makhtar Serigne Mame Baara Mbacke Moustapha Serigne Bassirou Kadior monsieur le maire bu Mbacke Kadior ànd ak. conseil yëpp ak adjoint au maire ak chef de village yi nekk ci departement bi ci ci euh, commune Mbacke Kadior yëpp ñëw nañu di ànd ak ñun liggéey bi Alaaji Njaaja Mbay ni ñu ko waxee muy kenn ci kër gi nga xam ni suñuy waajur la daan ànd di ànd ak ñoom liggéey ba ñu nekk tout tànk su suñu waajur war ñu ginnaaw mu ànd ñu ci liggéey bi Alaaji Njaaja yoon ñu ngi lay nuyu di la sant di nuyu ma jaxeer sama xarit sëñ Jili Amar Fall Mbacke mooy mi ngi fii sëñ Mor Penda Ndiaye ànd ak Ndiaga Gueye ak Cheikh Seck ci seen jiitu sëñ Cheikh Ndiaye bi nga xam ne mooy njëwriñu taaliba takk der yi ci kër gi ñoom ñëpp ñi nga ànd liggéey bi sëriñ Modou Aïssa sëñ Fama Tilay sëriñ euh, Saliou Tine moom it nga xam ne mooy secrétaire bu comité d'organisation bi sëñ Moustapha Alaaji Moustapha Ndong sëñ Alaaji Lamine Kajoor Alaaji Lamine Mbacke wàllu yu Kajoor nga xam ni moo yere moom itam mooy borom màggal gi ñëw na teew fi sëriñ Lamine Mbacke maam Thierno waaw sëriñ Modou sëriñ Modou Amar Bara Amar Fall moom it ñëw na fi daayira Sabilul Aman bi nga xam ne mooy sëtaati Cheikh Modou Leen Bara yi ñoom ñëpp ñëw nañu ànd ak sëriñ Lamine ak ñi ci ànd ñëpp sëñ Abdoul Ahad chef de village Mbacke Kadior moom it ñëw na sëriñ Xaadim Mati Lay sëñ Modou Amar sëñ Sidi Amar sëñ Modou ak mboolem ak njabootam ànd nañ ñëw sëriñ Cheikh Bara maam Kumba Amar sëriñ Jili Amar sëñ Bassirou Mbacke Kajoor ak ñi nga xam ne nag jotuma lim seeni tur maa ngi jégalu ci ñëpp. donc di la nuyu di la sant. yaa yi nga àndal ñëpp muy sous-préfet muy chef de service départementaux yi nga àndal yëpp ak locaux yi di fabriquer ay sant ak i ngërëm waaye lu jiitu loolu ñu dellu fàttaliku koo xam ni kilifa la woon ci dëkk bi nekkoon sëñ Mbàkke Kajoor nga xam ni bis bi su ma saa ñëw day yebal ak njabootam ñu ñëw ànd ak sëñ Cheikh Kajoor muy teew fi muy sëñ Moustapha ci xelam sëñ Mbàkke Kiima mu génn àddina bëgg dem rek ñu yeesal suñuy siyaar ak suñu ñaan ci moom suñu borom doon ko yërmaande ñu sant la bu baax ci taxawaay bi sant sous-préfet ak chef de service yëpp sëñ Modou Baara bu sëñ Abdou Lahad Baara mooy danañ mi ñëw nii di sant bu baax préfet ndax bis bi dafa nekk lu am solo ci yoonu murit nekk lu am solo ci lislaam sëriñ Moustapha bi nga xam ni mooy jëwriñu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara nga xam ni bisam la te mu jiite ko mu fonk ko loolu yëg ko tam jaral ko lu nekk saa su nekk mi ngi woo ñu gën cee farlu gën koo fonk moo tax bi mu jubsee ñu waxtaan ci suñu biir ñu woo la fekk yaa ngi conseil nekk fu sori ci wetu Kédougou ñu yërëm la ci coono yi ñu ni su absent bu ñëwee xëy na ànd ak sous-préfet dañ mën a dañ mën a waxtaan ba tënk waaye loolu doyu la sag njàmbaar ak xam gi nga xam gëdd kër gi ak lim la jaral tax nga bàyyi lépp dagg sa conseil ñëw loolu rëy na loolu ci sëriñ bi rëy ci ñun rëy ci njaboot bi kon ñu ngi lay sant di la gërëm euh, di sant gouverneur bi fi bàyyi ko Alaaji Buye Amar

fekk Cheikh Sidi Makhtar nekk na xalifa général de Mouride muy ànd ak ñun ci liggéey bi di ko jàppale ci liggéeyu Serigne Touba bi dëkk bii di Mbacke Kajoor ak màggal gi itam muy ànd ak ñun dañ ci jàppale ci lépp li nga xam ne bëgg nañ ko ba tey ba yàlla dogal mu xool ci pastéefam ak grandeur bi mu am xam ni dafa war a joxe réew mi loolu muy loo xam ne lu rëy la kon ñu ko ci sargal di ko sant di ñaan yàlla suñu borom mi am dimbal di ko dimbali di ko suturaal sutura daa iman yàlla mën na ko yàlla yàlla defal sant nañ ko gërëm nañ ko ndax man bi nga xam ni man la sëriñ bi nekkoon lii sëriñ bi nekk fi ñu daan bindante daan jëflante xam naa li mu liggéey ci bi seen sëriñ man da nekk xalifa xam naa mu liggéey ci Mbàkke Kajoor xam naa li mu liggéey ci jabol kon ñu koy sant bu baax di ko gërëm li may ci wax rek préfet mooy ñaari yëf laa bëgg sëriñ wax ko yeesal wax ko di bi nga xam dañu ko fee tabax ubbi ko muy nekk diggante frontière Diourbel ak Thiès ak Louga mu nekk ci foo xam ne am solo la boobaak léegi yàgg na te euh, général bi au commandant de la gendarmerie moo ñëw fii pour soutenir leen ba mu <laughs> entrepreneur sax fay ko bu te gis nañu ni yi léegi liggéey nañ fa ay brigade bu ubbi ko ba équipé ko loolu xaw ñoo jaaxal ñu woon sëñ bëgg a xam lu tax loolu bu fekkan ni sax amuñu effectif waaye effectif am na kon ñàkk yu ubbi daf ko jaaxal jaaxal ñu ñi ak njaboot ñaareel ba mooy centre social bi nekk fii nga xam ni moom itam depuis 2018 la waroon a am finition des ci boobaa yi kenn mënu ko àlle àggul ñaar yooyu sëriñ bi wax na ni su ma ñëwee naa la ko wax nga àggee ko say kilifa ñu taxaw ci ñu xam daal lu tax mu ñoo def loolu daa bëggoon xam daal lu tax ñu bëgg nañ ko waaye ñu sant la sant chef yi nga xam ni ñoom ñëpp jël nañu fi ay kàddu li ñu wax dal na suñu xel yàgg nañoo jëflante ñoom ci màggal gi te lépp lu ñu mën a def kenn ci ñoom def na ko da yëg sax ñu lay soññi soññi boo xam ne dañu mel ni kenn ci ñoom kenn bu nekk. mooy président comité d'organisation ci pasteefam ci yéeneem ci bëggam lu baax kon ñi ngi ñaan yàlla suñu borom rek lépp li nga xam ni su nañ ko fi moo àgg bi barakat rasulillahi alayhi salaatu wasalaam loolu daal lañ amoon ci loo xam ne ñu ngi koy wax ko ci euh, bis bi jëmale ko ci seen service sëriñ bi daal mooy li nga xam ni mooy li ko gën a ñor malgré li ma ko waxee mooy mooy mooy màggal gi mooy bisu faj la bisu taw féex la euh, wax na nag bisu jàmm la boo xam ne mi ngi ciy fas jàmm soqi koo ci bis bi tasaare ci Sénégal ba ci àddina bi yëpp di barakati rasulillahi alayhi salaatu wasalaam loolu lañ amal ci loo xam dañ koy tënk ndax sëñ Bara Karim imam bi nga wax ak si maam yi naan waxtu julli war a jot di bañ a guddal incha allah ñuy sàkku eh, li nga wax bi suñ ko mënee def su tey ñu ñu ñu maa ngi sant la presse bi nga xam ni ñoom itam saa su maa ngi jubsee ñu ànd ak ñun ci lépp muy rajo yi muy télé yi muy journaux yi muy presse en ligne bi site internet yëpp ñu ngi leen sant ci seen taxawaay bu rafet euh, di leen gërëm di ñaan rek ñu ànd ko ba keroog buy àgg si jàmm ak salaam jërë ngeen jëf. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakatuh. bu baax weer wi feeñ su fekkee feeñ na tey incha allah le 12 décembre lay doon le 12 décembre incha allah lañ jàpp ni mooy nekk maa ngi ma jafe kon maa ngi dugg noonu jërëjëf.